asalaamaaleykum wa rahmatullah yenn bokk tali bi yëpp bokk jullit ñi ñoo ngi leen di nuyu ci turu LAMP international kuréelu silmaxa yi handicapé visuel yi. ak mboolem taalibe yi ak mboolem dëkkandoo yi. bu defee li ñuy wax ci yëf yi rek mooy ñun handicapé yi kat ñoo teew tey jii soxla ci li nga xam ne moom la waa dëkk bi ndax lii ñu làmp di liggéeyal ñu tàmbalee def formation ba fii bu nu juumut ban ko tàmbalee mois de janvier la ba léegi ñoo ngi ciy liggéey yàlla it mi ngi nu ci dolli ndimbal ba jot nañ cee liggéey loo xam ni lu mu gàtt gàtt mën na téeméeri junne ak lu topp yoo xam ni benn dërëmu état néew ci politicien dugalu ko ci kenn dugale ko ci suñ ñàq yi ak ak suñ di ñuy dugalante ci suñ biir mooy wàllu commerce bi ñuy def ni ñuy leblante ci suñ denc bi ñuy denc ci leen yàlla dimbalee ba lim boobu diggante janvier ak léegi jot nañ ko fee def ba jàpp na ni suñu yàlla dimbaleen ba buñ gën a teel a jóg ba yëf yi gën a secteur yëpp gën a doxit ñoo ngi jàpp ni loolu dinañ ko ëpp te loolu lépp nag mi ngi jóge ci formation bi nga xam ni moom leen di kuréel Lamp International defal wan ne ne bala nga ne dimbale leen ma da ngay dimbali sa bopp ba pare kon loola tax bi ñu tego ci ñu tego ci di dox bopp ba léegi yàllaa ngi nu may ndam nag ndax liñ liñ di jot a am nii ku si néew buñ toogoon di xaare duñ ko am loolu nag du tekki ni dana war a demal suñu bopp ci bëggaluñ kenn dara ah kay ndax réew mi dañ cee bokk bokk ci citoyen réew mi bokk ci ta dëkk bi bokk doon taalibe Serigne Touba ni ñëpp kon ñoo ngi sàkku ndimbal ak ñi nga xam ne ñoo autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi li tàmbalee ci monsieur le maire sous-préfet ak bépp bonne volonté boo nekk ci dëkk bi nga xam ni man ngaa jàppale ku bëgg a liggéey tey liggéey ñoo ngi lay tàllal suñu loxo. muy groupement de femmes yi association de jeunes yi way laago yi ba ci ñoom ñii ñu bokk ci ñi nga xamante ne si ñoom lañ mujjee formé ak waa Daaru Karim yi ñëw leader yi. ngir ñu mën a demal seen bopp te duñu toog di xaar état duñ dem ca maire yi di ranga ko yëg a ko wàcc wala di xaar benn politicien bu leen di nax wala dara wala di dem ca banquier di leb wala di xaar ku jóge bitim réew wala ku ñëw di leen jox lu lewul ñu teg leen ci njàngaleem Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ba tey jii yaakaar naa ni ñoom ñii ay royuwaay lañ ndax kenn ku ci nekk la suqali sunu borom def na ko ci sam réew ñoom ñii nag boo doon wër Afrique sowu jant yaakaar naa doo gis kuréel ay selmaxa yuy demal seen bopp état mus jàpp kenn mus cee jàpp ba tey jii ñu mujj di def social di dimbaliwaat ay néew di doole loolu yaakaar naa bu ngeen ko doon wër du ngeen ko gis fii rek ngeen ko gisee Touba Mbacké te ñoo ngi ko sukkandikuwul ci njàngaleem sëriñ bi rek moo tax ñuy sant sëriñ Mountakha mi ñu booleek ñoom ngir ñu jàppale leen ak sëriñ Cheikh Jëmm leneen li si topp nag ñoom def nañ seeni i wareef ndax ku xam silmaxa buy demee bay def social ñuy def entrepreneuriat di di def autonomisation des femmes di dimbali soxna yi di def prise en charge des enfants en situation difficile muy seen doom yi loolu sax ñoo ngi ciy santaat bu baax préfet ak waa CDPE bu Mbàkke yëpp ndaxte réunion yi ma mujjee def ak ñoom bi ñu waxee wàllu centre bi préfet nee na loolu moom dañ ciy taxaw ngir lu jëm ci seen doom yi xale bépp xale bu nekk ci ay jafe-jafe yu ni mel rek te yéen seen doom yi ci ñooñu lañu bokk waaye nag leen li ci topp nag muy seen centre bopp yéen mag ñi. ñu gën leen a mën a taxawu ni ñuy taxawoo seen yeneen moroom yi ci réew mi loolu moom ngeen wax sànq ñaan autorité yi ñaan kilifa yi ngeen ñu jàppale leen ci ay terrain su ko defee su boobaa waa kuréel làmp mën a ñëw tàmbali di ko tabax kuñ si fekk fekk ñu si kuy dem bàyyi ñu si. am nañ sunu yoonu bopp boo xamante buñ ci tegee nañ am lu sel te nañ am ngërëmal Serigne Touba te nañ am sutura àdduna te bu buñ deewee dem àjjana barke maam Cheikh Ibrahima Fall. ñoo leen siyaarawaat baax di leen gërëm di rafetluwaat seen taxawaay